moom moo faj Diomaye. Ah, moo sauvé mais moo sauvé Diomaye mais est-ce que tamit. amuñu lenn loo xamante ne sekk nañ ko entre eux. oui xam nga loolu amul yow en tant que xale. Mhm. bu ragal bu dee dee ñëw deel ci ngor. Ah, xam nga ah. loolu amul xam nga amul. ba d'abord moom amul na candidat boppam. moom la jàppale joxu ci code li ñu bi ñu mosuñu ko gis ci terrain bi mën naa jàpp leen Diomaye moom fan la Diomaye ngay ngay lan dama ni. li nga liggéey ngay jariñoo la mu liggéey mooy deux points la am moo moo mais suñu 54 pour cent yi ëpp na ko moom dara moom demu ca xam-xamam demu ca daram demu ca te bu yore ñaanam kam fal la war a kam investir la war a ñaanam mu jàll te mun ñoo ñaanal yàlla nuy fal yàlla moo ñuy jox kenn duñ jox ku yor sa ñaan na nga ko téye hmm? ku yor sa ruur ku yor ku sama ruur gi ku ko mën a jël na nga ko jël tey dama koy wax mu leer képp koo xam ne yaa ruur ruur Ablaye Fall Mawo ak ak wéram téye ko tey man kenn rek laa gëm képp rek moo fi nekk mu yàlla ku yaakaar sama diggante yàlla nit du fi do man duma ku ñuy manipuler duma nit ku ñuy manipuler li ma des ci ma vie la dépassé naa fu ñuy manipuler te li ma xam bari na nag. te hmm? man li ma xam bari xam naa kenn doogal ku xam lu ëpp yàlla wax ma ko man yàlla laa xam du ma topp ci ginnaaw nit kuy noyyi may manipuler du ma wax loolu ko neex te n'accepte pas ça on tourne la passe allez ailleurs. Ah, dafa da nga jàpp ni euh, manipulation la manipuler ñan man sama bopp laa dama ni oui du ma dama ni yàlla sama diggante yàlla nit taxu fi. oui dama bëgg mu leer. Mhm. du ma toog ci nit muy tàcc di ko tàcc wax loo xam ne lii ma xam ne wóor c'est ko ci toog. il falul jomaay te du ko fal parce que amoon na candidat boppam. Ah, ca la mu doon wax dafa am ci ñoo xamante ne ña nga doon tàcc di ko apprécier. pourquoi pas da nga ko gisul il a des am na ñoo xam moom la ñu gëm gëmuñu keneen waaw mais dama ne man bokkuma ci ñooñu ku may xool ci ñoom joo ma gis voilà. est-ce que tamit jàpp ñu ni li mu wax comme en tant que seen jiit koo xamante ne moom la ñuy topp euh, li mu wax rek. loolu la mën a loolu la ñu mën a gëm peut-être ba mën caa war a mën a nga wax léegi ni sama diggante yàlla ni doxu fi. dama lay gis nga ci lu baax ma topp ci lu baax li mais am na ci ñoo xam ne xam xamuñu xam ma gëmee ni lii ngay def lii ngay def ay intérêt personnel la jël sa doom di ko promouvoir di ko defal une promotion bàyyi sama doom wala nga bàyyi ma du ma ko nangul kuy noyyi du ma ko nangul nit kuy noyyi jël sa doom ba tuddee ko capitaine capitaine bu demul armée mën naa nekk tu n'es même pas soldat de deuxième classe nooy demee nooy nekk capitaine capitaine c'est quoi n'importe qui ba être capitaine il a une passion def moom son son usurpation de fonction xamul je doom bi mu ànd ñu naan ko capitaine usurpation de fonction lay def il n'est pas un capitaine il n'est même pas dans la deuxième classe. il est là. je m'en rien je ne veux même pas le savoir ko xam. xool ko dama du ma ko xool parce que bëgguma ko xam man du ma xool koo xam ni kii intéressé mais en tout en tout cas là c'est grave bu ñu demee ba fonction yi ak grade yi armée yi am ñu koy jox ay nit ñoo xam ne dinaa même pas faire mu soo nekk sa deuxième classe là c'est extrêmement grave c'est grave la. dama ni armée war a jël responsabilité on peut pas le dire mon capitaine parce que il n'est même pas soldat de deuxième classe voilà la vérité. usurpation de fonction. oui moom la def moom la def. doomam ji ñuy woowee capitaine. waaw animage ngeen di ko gis mbokku internet allo Sénégal usurpation de fonction la def ça ma responsabilité da armée laay woo na mu jël ay responsabilité cap c'est pas n'importe qui peut être capitaine. tu n'as formation mosoo dem armée xëy ñu naa la capitaine capitaine ba xanaa capitaine de Alioune Cissé <laughs> xanaa capitaine de Aliou Cissé mais papa yooyu capitaine de l'armée non arrêtons bu fekkee nag dafa am une armée ci biir Sénégal na ko wax nit ñi su fekkee moom dafa am armée ci biir armée sénégalaise na ko wax nit ñi en tout cas une nous avons une armée une seule armée la am mooy armée la armée nationale armée nationale la am bu fekkee beneen armée dafa génn ba mu carré na ko wax nit ñi il peut pas capitaine il n'est même passe par de deuxième te bu ko nee wax naa ko déposer plainte contre lui. Hmm? je vais déposer plainte contre lui. contre qui. contre usurpation de fonction. man xam man xaw ma turam. d'accord doomam la en tout cas doomu Moustapha Cissé te li muy wax nii dafa garaaw. il n'est pas un capitaine. c'est pas n'importe qui va être capitaine moi je suis un militaire je suis de carrière du ma permettre ku ne mu nekk loo doon. dama ni suñu demee bay bay tuutal armée day tu officier de armée ñu koy tuutal. dem ba koy di ko di ko manigaser di ko di ko ignorer ba jël un une personne koo xam ne ne même pas jaaroo bàngu jaaroo fen ñu ne capitaine moom capitaine sa c'est n'importe quoi. est que du terme rek terme ñuy jëlee non du terme appellation la appellation du terme c'est ku nekk la nga mérito bu ñu ko wax sëriñ bu ndaw bi sax mën naa ko dëgg. Hmm? bu ñu wax sëriñ bu ndaw bi mën naa ko gëm mais capitaine c'est trop pour lui il ne peut pas capitaine voilà. E uh, aca il a apprécié notre président Diomaye Diakhar Faye ci côté boobu it ana ban jàngat nga ci def. damay apprécié ça par rapport à quoi. apprécié na ko ci doxaliwaay tolluwaay réew mi jox doxalinu. munul wax leneen doxalinu réew mi oui. munul wax leneen lim gis rek lay wax foofu. dama ni munul wax leneen ci président Diomaye parce que nag lu ñu fenk kenn du ko jeex lañ ko doon ji ñoom ñooñu ñëpp tey jeex na. dañ hmm. ko luñ ko ji ñoon gëmuñu di gëmuñu sëriñ mais du sëriñ bu ne ngay gëm. sëriñ laa ñu gëm la sëriñ dañ koy démontrer sëriñ dañ koy wane mat sëkk fi ñu dem foofu la war a dem ndax ñoo ñooñu wane nañu ay sëriñ lañu bu ñu fekkee ñoom ñaar moo tax ñu mer kenn ki dañ ci ñëw léegi mag yow. Mhm. c'est leur problème. Mhm. fi ñu dem daal gëm nañ ni foofu la ñu war a dem. et puis on est dañoo dem xooli ay xalifa généraux ay xalifa généraux lañ seet ak seen i xarit mais ku nekkul xalifa général nekkul seen xarit du la ñu seeti dama ne. Mhm. na xaar tuuram yàlla na ko yàl def xalifa général yomb nag. Mm. parce que boo bañalee kii ñi bañal la boo bañalee ñi ñi bañal la xalifa général du yomb de xalifa général daal day tijaan du yomb parce que dafa comme da leen bañal dañ koy bañal dëgg rek fi nekk yàlla képp fi nekk bu dëgg ñëwee dañ ko waxante te lii rek la réew mi ñu réglé ko bu ñu bàyyi réew mi nii ku ne def loo suur bi nga xam tey suur bi gën a suur yi la ndax bu ñu sàkkee moo tax mm-hmm. suur bi tey ki ci juddu ki ci juddu moom guddi gi ki juddi bu ñu sàkkee moo tax kon dañ ko war a wekk bañ faa wax politique bañ faa xasante bañ faa xuloo mais gis nañu kër yi nga xam ni ci lañu nit ñi suñu mbokk ci lañuy yaakaar damay dégg kër yooyu ñoo dem ba am problème dem di xuloo ci seen biir di xeex ci seen biir ba pare génn ko ci biir di xas ñeneen ñi bu ñuy xuloo ak xeex na yam ci ñoom ñu génn ci nit ñi nañu fi génne ñun ay citoyens yu respectable nañu et on est respecté on va l'imposer euh, la discipline d'accord il faut l'imposer la discipline bu ñu amee nañ ko rek seen biir mais nañ ci génne nañ ci li yëpp ay chantage la et puis ça ne passera pas avec moi. d'accord voilà. est li nga xamante ne moom la euh, Cheikh Omar Omar Omar euh, daal di waxoon euh, ci ni ñenn ñi seen maam la ñuy liggéey ñoom topp ñu ci seen i tànku maam dañoo ber seenub daara di nekk ca la leen neex ak di wax la leen neex daanaka ñu bëri daal di dar ci kawam mu mel ni sax moom adduwaat na jëm ci kaddu yi nga xamante ne rek Cheikh Omar addu woon na jëm ci tontu Fall ndax côté boobu it duñ ko nangul Cheikh Omar. xam nga Cheikh Omar mhm. tudd parce que li ma ci waxoon naa koo pare. en tout cas am na ay raisons sur nous. ndax lii xew. voilà. am na ay raisons sur nous lii xew. Cheikh Omar xasul ñëpp. Mm. daa am ñu mu wax. kon ba mu naan am nañ fi. ñi mu doon wax am nañ fi. ñu bëgg ko ak ñu bañ ko Cheikh Omar ñoom doon des na le droit am nañ fi. Mm-hmm. mais Cheikh Omar dafa sonn su si fatigué de Cheikh Omar. sonn ci moom lu wax naa ko ci. dañuy da nga jox dëgg fii. jox ko fii lu mu dëgg waaw man loolu laa eh, doon d'accord loolu laa doon xaar depuis depuis keroog ah depuis keroog loolu laa doon xaar da koy jox dëgg ci ñenn ñi voilà doo ko jox dëgg ci ñenn ñi te moom nag waxul ñëpp voilà waxul ñëpp de Cheikh Omar Tam boo ko analyser dëgg-dëgg waxul ñëpp ñenn ñi la wax mhm. te ñenn ñoo am na feeñ na démb ak tey feeñ na feeñ na ñaseen feeñ na fii ci Tiwaawan te mën na feeñ feneen ëllëg nañu wax dëgg. ku ci yaakaar sa maam sa maam sa maam moomum réew mi. Mbàkke nga sant wala si nga sant wala ñas nga sant lu la neex wax. Sëñ Tuubaa waxul loolu kenn Mamadou waxul loolu kenn Baye Ñas waxul loolu kenn. Sëñ Tuubaa ma uma doom la wax. lii ma yor yàlla jox ma ko ma jaamu yàlla ba mu ma ko ku ma bëgg ci nga yem loolu Sëñ Tuubaa wax Maodo Malick àq bil àq la wax àtt dëgg ci biir dëgg waaw. kon nag nañu xoolaat suñu bopp xam nañu def kenn gënul kenn am nga droit nag am it ne am am ko gidd. te gidd bi ngay gidd. da am xel nga koy xool la muy def est-ce que li muy def ak yow li li ñu la yàlla def loo benn la su la yàlla def loo bu defee lu yàlla du def ngay lànk da nga war taxaw man loolu laa gëm. ma ni man du ma ma topp nit ki aveuglément sama demande bi. Mhm. ba ma juddoo ba nëgëni lépp lu may nekk dama koy tànn. Mhm. dama koy tànn xool lii lan la man ku ma gën a may jiite. donc di ko ŋàññoon ñëpp kon tey est-ce que du ñu taxawaat. dama ni ku ko ku ko waxan leen war ko pardonné na la waxoon loolu am na. il a raison sur nous. Mhm. waaw am na fu mu defee tort am na fu mu koy fu mu yaayee. nañu ay nañu léegi kon on peut le pardonner.